Salut les amis de eSport TV, merci encore les gars de la confiance que vous voulez, merci de vous aider, merci de vous des abonner, merci également de baisser les commentaires, en plaisir au nouveau les gars, et chaque fois de partager des informations, et un box sénégalais fait folle maintenant, 14 régions du Sénégal, à Nouvelle Cup, nous sommes déjà feu, nous sommes également l'hôpital de sécurité de février, nous sommes bon focus en bof nous sommes ci kasso yi, nga xamné aussi erreur judiciaire ak ñeneen ñi def lu mo leen fa yob suñu borom génn leen fa délé wat seen njabot ñi di do aduna, suñu borom xaré leen fi ci gaay ñu, on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu gars. actualité ñu fas yéene waxtaanee li nga xam nag mooy donc kii di Malang Sarr mi nga xam ne jamono ji dafa bëgg a jóge ci AS Monaco équipe nationale du Sénégal nga xam ne huit milliards la am ci prime ci huitième de finale ak aussi kii Karim Benzema Benzema bi daal di internationale loolu la ñu fas wasare ko loolu sax lañuy tambalé Karim Benzema Benzema mi nga xamné tay dafa xëy def ab bataxal dal di koy fësal ne rek li nga xamné moy lépp lu warona def def nako def na lu bax def na aussi ay njumtef waye loolu batay motax mu egg fu mu egg waye tamit sama jaar-jaar ak équipe de France nak fi lay daal di yam loolu nak nek lo xamné lu metti la Karim Benzema bi nga xamné c'est 97 sélection 37 buts fano yara buts ak juróom-ñaar la daal di dugal kii di Karim Benzema Benzema ñu jàpp ne rek ab trof trof ab ñaak dégo bi mu am mom ak ñom di Didier Deschamps mo waral mu daal di mer ne mom fi lay yamale carrière internationale, le Ballon d'Or 2022 kii di Lionel Messi la poule donc top 6 des sélections du Coupe du Monde bi donc bi FIFA génn top 6 baa ngi Argentine la France hein, Croatie Maroc Pays-Bas ak Japon ñu ñoo euh, nekk ci top 6 bi équipe bi nek ci kaw ko top 6 nak équipe yi gëna a moy nak ñi ngay gis ni gars muy Allemagne Belgique Espagne Qatar Serbie ak Brésil Qatar ndax mo nekkoon pays organisateur bi ñëpp japon nañ na gën premier tour bi donc ñi ñoy top euh, six de euh, yi Brésil euh, Argentine plutôt Allemagne ak Espagne ak Belgique ak donc on est favori favoris. Lionel Messi li équipe nationale Argentine gagné la coupe du monde 2022 Copa América gagné coupe des champions gagné également les nga Jeux olympiques 2008 gagné coupe du monde U20 en 2000 5 pour la Pulga. L'un de ses meilleurs amis également dit Luis Suarez nee ko félicitations mon ami tu es et reste et sera le meilleur ndax moom dafa ne Lionel Messi yow daal yaa fi des yaa fi wéy di nekk ki nga xam football bu déglu waxu gars d'Al qui daal la euh, ci euh, di donc kii di Luis Suarez daal di waxal kii di Lionel Messi ñi ñaa ah, donc meilleur joueur meilleur gardien meilleur buteur meilleur jeune joueur Ou Argentine nag ñoo jël prix presque avec trois trophées qui Mbappé le moom moo leen rax ñëw nekk ci li nga donc meilleur buteur de ce mondial donc mi ngi nii nag yi nga xam ñoo jël meilleur joueur de la coupe du monde tambalé ko nak ba ñu tegee trophée ba légui 1982 ñi ngi ni ngeen gis né nak ki di Romario Ronaldo Zinedine Zidane hein ah, ki di donc ah, donc Diego Forlan donc Oliver Kahn jël nañ ko Lionel Messi nak mo ci ëpp lim ko jël jël na ko ñaari yoon kii nak di ah, donc Ethan Mbappé di rakku Kian Mbappé né nako xolal ci kaw sigil grand frère man yaay sama idole yow yaay sama model yaay sama référence Ethan Mbappé nak donc di rakku kian Mbappé nek di jouer ci euh, petite catégorie bu Paris Saint-Germain wa Bayern Munich nak également ñom nak ñi ngi défendre sen joueur di Kingsley Coman nga xamné depuis démb ay cadeau yu ñagas dañuy jël diko tek ci ndo ndoddam mom ak ñenn joueur yi nga xamné ne mën nañ sax joueur yi nit ñu ñul ñi nek yépp ci équipe de France wa Bayern nak nee ñom dañ koy défendre ba tëdd ci suuf gars yi 220 milliards 220 milliards lañ ne moom la waa Qatar def pour daal réussir organisation coupe du monde Qatar 2022 coupe du monde bi gën a cher ci histoire football donc loolu waral nag mu nekk tamit coupe du monde bi gën a neex lii nag bu ñu doon xool U 23 trois joueurs yi am vingt ans wane seen bopp ci 11 type coupe du monde bi mi ngi nii ah donc ngeen gis ko donc ñoom Diego Costa ñi ngi ci Dalot Musiala également Koudous mi ngi ci Vinicius Junior également Bellingham Timber coraté entre autres li nak di image gay gars yi ba ñuy di dëjal ki nga xamné nak moy donc ki xamné euh, moy la légende donc du football euh, bi nga xamné jaar na ci Inter de Milan jaar ci Lazio de Milan muy donc ci Simica Mialovic ngeen gis ne Mancini mi ngi won ci ñi ko doon yóbbu Amrabat nak actuellement gay mom la ñëpp di wax fi mu ne nii Liverpool ak waa Tottenham dal ñu koy et selon les informations nenañ mom dal préférence mi ngi ko jox Liverpool tandis que du côté de Tottenham on espère que dina fa daal di ñëw Jour bi ngeen di gis nag gaay nak moy Zubimendi Zubimendi nak actuellement mom la dal Xavi Hernandez daal di jël tek ci gëteum ndax japp na né mom mo yor profil bo xamné mëna remplacer Sergi Busquets du côté donc du FC Barcelone fii ak saison bi di ñëw mom nak xawi nee na li bëgg moy euh, wax Serge Busquets mu daal di prolonger contrat même bu dee benn at waaye nee nañ fi ne Busquets mom jël na décision né na day dem fa nga xam ne nag donc ci États-Unis daal di fay euh, jouer mais nak ki di Xavi mom né na mi ngi garde espoir dina tok wax ak ki xam Busquets jëm ko convaincre mu tok fa ndax il a besoin de euh, lui Andrés Iniesta de retour du côté du FC Barcelone demon na séti gars et tout ngeen gis ko les retrouvailles avec les deux amis ñaan yi gay yi bokk nañ ci légende yu football donc bu FC Barcelone moo tax daal gars yi ñu daal leen di euh, donc euh, gis mu demoon seeti leen demoon tamit euh, échanger saafonte ak ñoom officiellement nag yàggoon na metti woon mais na mujjee na nekk nag Textor di donc le nouveau propriétaire de l'OL américain bi nak mujjee na am accord bu leer naa ñi moom ak waa di Olympique Lyonnais pour nekk maintenant patron bi daal leen koy jënd ci ñoom donc mu ngoog kii nag di donc euh, Malang Sarr gay yi Malang le défenseur franco-sénégalais bi nga xam ne Chelsea moo ko am alko Monaco Chelsea moo ko moom moom nag fi ne nii nee na dafa commencé donc euh, mbir da ko commencé soof agent am nag moom moo ko wax agent am nee na actuellement daal Malang sar euh, ba moytuwut du des fa nga xam ne mooy ci Monaco di fàttali nag Monaco moomu ko ah dañ leen ko àll moom nag nee na fi ne nii temps de jeu bi mu bëggoon am moo tax amu ko mu mu fay jóge moom nag ñuy fàttali rek ne moom li tax mu jóge Chelsea mooy ne dafa bëggoon am temps de jeu waajal aussi boppam gën a évoluer gën a ci carrière am fi mu ne nii nag ñaari club daal la ñuy wax Torino yàgg nañ ko soo bëgg ba tey ñu ko doon topp avant moo ñëw ca Monaco mais également Milan AC Milan AC bi nga xam ne gars yi nee nañ ay at ak nii ñuy topp profilu Malangsa parce que profil bu ñu bëgg la moo tax daal agent am nee na ba muy du yàgg Monaco donc soit mu dem ca Torino soit mu dem ca Milan mais d' abord day dellu ca Chelsea balaa moo dellu bu dellu ca Chelsea nag après daal di fay jógee donc Malangsa aujourd'hui qui est frustré gars yi de sa situation du côté donc de l'ASM. loolu nag gars yi ah, li nga xam ne mooy donc équipe nationale

mérité ci Sénégal dina ci gis boppam mu bañ a dem rek ci gafa yi ah ci kopp poche yi daal di fay toog moo tax daal ñuy wax rek mooy que ne FIFA moom déclaré na ne donc treize euh, million de dollars muy huit milliards ci suñu koppar la ñu jox Sénégal ci participation notamment ba mu eggee ba huitième de euh, finale de cette coupe du monde boo Sénégal day Wajalat, le Sénégal bi nga titre continental Lata muy dem ci li nga en espérant que cette fois-ci on gën euh, les amis c'était donc les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir woy like et surtout woy leen di abonné surtout ñu abonné pour agrandir la famille on avance ensemble dans la magie de eSport TV Dja yi jaa